Jéema damay laaj dong. waaw <laughs> ah, da ngay laaj dong vraiment vraiment. Birama jar na laaj c'est une bonne question. doyen non question doyen bi laay dellu bu ñu bu ñu njëkk avant ñu bi mu ko laaj en tant que maire politique ba pare ci li nga moo di bi. nga nekk dans une zone boo xam ne mooy ñaari tali Grand Dakar Biscuiterie ñëpp xam nañ ne comme li nga wax y'a beaucoup d'ASC y'a beaucoup de programme waaw nu ngi koy gérer mais man man nag man nag sama laaj mooy politique bi dafa jëfan nar jëfandikoo mouvement associatif bi wala wala sport ak sport beeg engouement bi pour mën a ñun de fii lañ toog barki dem di ko waxal xelam ñun te ñëwul pour mën a isewu politiquement non li ñu ko waxal li ko waxal du xelam de li ñu ko waxal mooy ci mouvement associative ah ci mouvement associatif fa lañ ko ràññee mhm. fa la doore mhm. mais ñooñu ñoo ko buux sax ba mu def politique loolu lañ fi wax ah, ñun kay loolu lañ wax mooy xalaat loolu peut-être dina ko confirmer wala mu infirmer ko mu infirmer ko waaw ñun de loolu lañ jàpp non effectivement c'est le mouvement ma pousse mm-hmm. ba ma nekk maire mm-hmm. tout ça bon ça peut-être que le sang qui parlait mm-hmm. parce que de soixante-quatorze article def naa benn militarisme militarisme de base la musuma am ambition politique ça aussi il faut l'accepter mais man ma très très jeune j'ai milité dans le mouvement associatif dans le mouvement navétane mais mouvement navétane aussi boo boo ko xoolee pratiquement tu fais presque le travail du maire yaa ngi dans les cours de vacances yaa ngi daan l'enseignement yaa ngi dans la culture yaa ngi daan l'environnement set setal et tout ça et encore yaa ngi dans le sport donc mën na promouvoir sa association politique facilement mm. et ensuite quoi qu'on puisse dire tu es toujours au contact des le succès est venu. le succès de Niary Tally. Euh, euh, dans les navétanes. dans un premier temps avant 2000 et après mille loolu peut être def na benn ascension ba nit ñi ba nit ñi gën ma xam. mais man aussi j'avais des combats personnels à mener ah. par exemple. par exemple moi je menais combat du terrain de Niary Tally. muy Maracana voilà Maracana bi. mu terrain Maracana mais bi nekk derrière la direction defar nañ ko léegi dañ ko defar ba mu kii voilà di nga xëccoo donc bon ça serait un combat <laughs> sportif un combat personnel que j'ai commencé à mener depuis les début début 80 mmh. mais amul amul amul amul woon ici mmh. et même quand Abdoulaye Wade est venu au pouvoir ma dem di ko gën a xeex et Abdoulaye Wade sa base politique sa ñaari tali. sa ñaari que dina facile mais c'était devenu plus difficile plus compliqué. ah bon ah devenu plus compliqué. Mm-hmm. parce que moment wu la terre appartenait à l'État mais quand Abdoulaye Wade est venu et qu'on lui a posé le problème da ko génne dans le patrimoine de l'État dugal ko dans le patrimoine de la SICAP. Hmm. mu gën a compliqué. waaw ah, mu gën a compliqué léegi mu nekk entre ñun ak SICAP. ok mais quand Macky Sall est venu ce terrain là dama ko légué loolu gën a ma rapproché ci Macky Sall. Eh, gis nga de. non c'est vrai que oui terrain Marikana kay c'était c'était juste un truc un organiser ay ngelak lu ne lañ fa mais mais mais moi parce que terrain bi. Macky ak a xam li mu bëgg ak fi mu leen di jaar non non mais c'est le mais président quand par exemple bu jëlee terrain bi mënu ko mettre à la disposition de d'une ASC navétane il peut mettre il ne peut mettre ça la disposition de la commune de Biscuiterie donc man aussi pour que sa terrain là de la commune de Biscuiterie mu ñëw. euh, vers le club de football il fallait que je sois conseiller municipal loolu moom dugal loolu moom dugal en politique. Mhm. le maire bi nga xam ne moom laa doon wul moo def deuxième adjoint au maire. kon moo fa nekkoon au temps. Doudou Sagnas parce que j'avais j'entretenais parce que politique warul indi clivage entre nit ñi quoi. warul indi xeex warul indi xuloo. Mhm. et lui lui il savait que aujourd'hui moom boo période ba xamoon na ne que. moo nag apporté quelque chose. en tant que waaw en tant que taxaw taxaw Dakar. mais après il m'a dit que jeune homme il faut nga ñëw ñu liggéey. ma ne ko mais man j'ai pas besoin mu ne ma non ba yow xale yi déggal leen et cetera et cetera mu ne ma non j'étais fait deuxième adjoint après moom pendant cinq ans mu diriger la mairie xam nga après dafa am dañ ko yokk. le mandat deux fois Macky Sall dafa dafa yokk mandat bi. maintenant bu mu desee deux ans je après ci ci la décédé. waaw ci la décédé c' est ce mm. mm. deux ans j'ai montré xam ne les populations ont eu confiance ak ñu kii ko mais sama assertion politique sport bi moo ko facilité. mais y' des exemples ah y' a des exemples Lamine Diack. Mm-hmm. par le sport bien que il la politique. Mm-hmm. Weah. Bernard Tapie. saa yi saa mu ngi tracé ay vies loin de waa ji. <laughs> et tout ça y a des gis nga exemple yi mu la jox. par contre am na si ñoo xam ne aussi. seen seen euh, <laughs> le Bernard Tapie saa yi na feneen fu mu teg ay gëtam le le ministre Ablaye Sow bon. ah du Kaffrine waaw. Ah, donc mu bon. on a eu des exemples des gens aujourd'hui xam ne. parce que le sport aujourd'hui au niveau de la fédération c'est le même schéma à avec Matar il était dans les navétanes pendant des années. ko xamee. c'est lui qui dirigeait c'est lui celui qui dirigeait l'autre l'autre ONCAV. c'est ça. c'est le cercle d'amis. non Matar il nous parle de ses amis maintenant. non mais c'est ça yow daa yaa posé question Abdoulaye Seydou maire de maire de maire de moom moom moom c'est c'est le sport qui nous a réunis hein ouais quand même bien que bien que bien qu'il y avait des divergences politiques mais sport moo ñu réunir mm-hmm. te nag nit moom njëriñ rek njëriñ rek nga koy nga koy doyee mm-hmm. njëriñ nga koy doyee